askan wi ba jàmm ngeen yendoo ñun de moom la ñoo fanaane lu def waxu nag lu ay di jàmbat ah bisimilah yi jàmm la quotidien yéen kaay lañ koy xëy daal di doore mu xëy nag daal di bombardé bu xëtam bu njëkk ki nga xamante ni moo di Thierno Alassane Sall daal di lancé li nga xamante ni moo di mouvement ba moo mu daal di dippee nag république des valeurs yamul ci loolu de ñu ne nag de Macky Sall ko daanaka rek lu mu ko yàqul lu ne dafa fekk mu daal di koy fàtte ndaxte nag ko war ma ak valeur yi nga xamante ni mu ngi ko daal di bëgg ci suñu république bi mu mel ni nag république bu la ñu daal di am yéen kaay bi koy xëy daal di koy fësal ci xëtam bu njëkk ku yabu ne xalaas laas yéen kaay Sall Sall de ma ne ko la nga xamante ni nag de moom la xam la ci ko suñu ko république bi mouvement politique bi nga xamante nii nag de jot na ko daal di lancé yéen kaay bi dañu xamal ni ko daal bu ñu sukkandikoo ci Thierno Alassane Sall mii quoi ko mi de mel na ni nag ko lu laaleeg war ma ak ma ne ko li nga xamante ni moo di valeurs yi nga xamante ni moom la ñuy xaar te suñu mag ñu baax ñu bàyyil ñu ko fi du soo ko ci waaye nag mu bëgg ni nag ak yeesal la fa seene daal di amaat te loolee Idrissa Seck ak Ousmane Sonko ma ne ko ñu ngi ko daal di jot a dànkaafu nag jot nañ ko xam ni ko daal moytul de ko régime bi nga xamante ni moom nga ko seqal bu la yaboo nag nga ubbi sa dënn bu baax te mën a muñ bu ko moytuwul nag ma ne ko fa ñu jëm ak yow zoom info du ñu ànd ak ñun du ñu xamal ni ñu ah baa du gaalu dof du teer lu mu ci mënti doon daal lii nga xamante ni nag de moom la kii di Mahmoud Saleh daal di yëkkati daal di wax mais république de valeurs ba nga xamante ni moom la wax ci fan la ko la ko la nga xamante ni moom la gis boo ko xoolee ba ca biir daal mu ni guerre des républiques la gën a daal di gis rax ci dolli nag juróomi commandement ya nga xamante ni moom la Thierno Alassane Sall daal di wax Mahmoud Sall de quoi samp naw laaj ba tey de di wax ni nag moom li ko jaaxal moo di valeur ya ñuy wax te nag la mu sas Thierno Alassane Sall du lenn dul valeur yooyu ñu fekk ko ci moom moomee nga xamante ni moom moo koy xëccu l'observateur yéene kaay di ñu xamal ni ñu daal ko ak ceede am na de Serigne Bass Abdou Khadre de ko moom mooy xamle nag ko lenn lu nga xamante ni nangu na ko ci noppam bii mu jugee nag ci kàddu Serigne Sidi Makhtar Mbacké xalif général Kourlou Mouride mu wax nag ci diggante maître Abdoulaye Wade président ak ki ko wuutu di Macky Sall mu ni la mu bëgg nag moo di ñu toog wax waxtaan seet ku ma ne ko loo xamante ni jàmm la ndaxte intérêt réew mi yépp la libération yéene kaay mu ñëw ci doo leen fi doon dégg di doon nañ fi doon a xool nag naka la ñuy def ba ñi nga xamante ni dañu jël alalu réew mi te nag ma ne ko teguwul ci yoon ñu ne tëgg wëndeelu googe noonu nag ji ñooñ nañ ci kii nga xamante ni moo di doomi Abdoulaye Wade ji di Karim Wade waaye de ko gis nañu ni ab immeuble ak ñaari kër yu nga xamante ni delloo nañ ko waddee ni de yëlal yéene bi am ca la leer nañ loo ca mënti dégg ma ne ko ah am na nii ma ngi koy ñab ñabalaatam ci digganteem ak kii di Abdoulaye Wade la solo yéene kaay ni ñu ko doon laajte makee ngi nii ca présentation livre l'Occident ambigu de Mouhamidou Sall yéene kaay bi xam le na ni daal Macky Sall fi mu toll nii de ko message ba nga xamante ni jël nañ ko mu di message bu foor daal di jëm nag ci àdduna wërngal këpp jot na daal di rafetlu loolu laata ñu jàll nag ci enquête mu indi ci xibaar bu nga xamante ni jamono ji nit ñaa ngi koy gis nag mu jëm nag ci li nga xamante ni moo di feebar bu yees bu ñu daal di dégg dem nañ ba di ci juróom benn fukki nga xamante ni ñu ngi koy wax ci ndakaaru gii ca Louga ko mu feeñ nee ñu ñaar fukk ak ñaar feebar ba ñu ngi koy dippee dengue yamuñu ci loolu de yéenekaay bi di ñu xamal ni ñu ci professeur Bernard Marcel Diop des spécialistes des maladies infectieuses xam na leen ni daal dengue type 3 la waaye yamul ci loolu rek nee na ngi xël di wéy ci Sénégal gii amul médicament contre bi te du vaccin yéenekaay bi moo ko xamle ku bëgg a xam nag Imam Ndaw ñaari atuy kaso yàlla yi nga xamante ni def na ko lan moo koy metti fi mu toll nii la muy souffrir yëral yéenekaay bi di enquête ñu jàll ci vox pop noppilu mu jëm nag di ñu xamal ni ñu docteur Youssou Ndiaye di chirurgien dentiste moom nag de yoroon na fi ay hôpital de jot na daal di xam le ni daal boo ko xoolee ba ca biir suñu nag système santé bi ko dafa daal di feebar këru fajkat yi nag moo gën a wopp malaat yi yemul ci loolu de xam lañ la ni daal boo xoolee ba ca biir système bii ko exercice illégal privé ma ne ko bi am ci biir hôpitaux yi ko système bi la neex ndaxte ñoom ñoo ko installé ca biir te li muy wax it am na ci ko teg moom mi nga xamante nii daal révélation mu wax ex directeur hôpital yëral yéen bi xool la nga xamante ni moom la ca wax waaye mel na ni daal kon nag ma ne ko këruk hôpital yi ñàkk jubadi gi nga xamante ni buñ ko cis ne mais ko moom mais xam ne na ni daal dafa am ak yi wat gaal yogoogu ca am 24 heures di ñu xamal ni ñu la nga xamante ni nag moom la ñu bëgg fi mu toll nii mu jëm nag ci assemblée nationale ak immunité parlementaire maire ndakaaru bi di xalifa Sall yéen bi ni ñu xamal ni ñu daal yëngal gësam ma ko dina am nag ca assemblée nationale réew mi quotidien ànd ak Khalifa Sall di xamal ni ñu daal devant le peloton d'exécution politique yéen kaay bi nee na ñu daal lever immunité parlementaire bi Wilane applaudi des deux mains Dakar Time ñëw nag ci tong-tong gi nga xamante nii nag moom moo amoon ci ab ma ne ko prêt mu nga xamante ni nag ab la toll ci 17 milliards ci Ecobank acte neuf baa ngi nii ñu ne ñu fuy bàyyi nag ko kii di Cheikh Kanté ex DG bu port waaye nag ma ne ko di topp kii di xalifa Sall ak ki nga xamante ni moo di Karim Wade yeneen yéene kaay bi xool ndaxte nag nee nañu kii di Cheikh Kanté bu fekkoon la mu mëne mëne na ko ca port ba rek Macky Sall du ko fa teggi les échos yéene kaay ñëw di daal ni ñu daal ci milliardaires yi la dugg mili comme nag ñoom fi mu toll nii daal kii nga xamante ni nag moom moo di kan Kabiru Mbooj ah mayel bët yéen kaay bi ba dafa mel ni bàyyi luñ ko dara de rax ci dolli nag de yéen kaay bi xam le na ni daal wari fi mu toll nii ñoom nag la ñuy miser définitivement ci hors course et éviter à cesser ces informations mensongères yamul ci loolu de Yërim Saw ak ay partenaire am daal ñoom la ñu gis na ñoo gën a crédible yëral yéen kaay bi Moustapha Diop yéen dafa déggul tubaab am lan tontu ko taskatu xibaar yi mën a ko lu tëla yi ñëw di ñu xamal ni ñu ci wàllu koom ba tey la ñuy yóbbu Cheikh Amar ku bëgg a xam nag naka la def ngir daal di taxawal lii di juróom benn téeméeri milliards ak fukk ak juróomi yeneen yéenekaay bi am te lu la laar stat yéenekaay ni ñu ay milliards daa ko dégg ci langu sport gi mondial 2018 Afrique du Sud Sénégal Keita Baldé mu ni nag numéro 9 bi à Polokwane yéenekaay bi ñëw na ci loolu laata mu ñëw nag ci premier trophée Mbour Petite Côte tournoi coupe parlement bee ko waral suñu lamb yéenekaay ñëw ci nag Papa Sow Ama Baldé 19 novembre ca Léopold Sédar Senghor ministre ministère ba de ca la ñu di ko wax nee ah ay formalité ca des de yàgg bawul dara ñu yéene ñëpp jàmm ndax li ñu war a a bari bu ko kenn ñëpp na ko ñëpp coom as lëf ci yéenekaay jaa ngeen jëf